li nga xamante ne moo xew fii ci Médina mooy dañoo gagné élection yi loo xamante ne daan na am waaye dafa gajoon te li ko waral mooy dañoo am ñi nga xamante ne ñoo ñu doon coordonné yaa ngi déglu wan ñu yoon wi nga xamante ne moom la ñu war a jaar ba ñu jaar ci yoon bi ñu ciy jiital Seydou Gueye euh, di coordinateur euh, teg ci Cheikh Ahmed Tidiane ba di vice coordinateur yaa ngi déglu ñoom nag ñu taxaw taxawaay bu rafet ci biir Médina bi yaa ngi déglu unité bi nga xamante ne moom la président doon woote moom la ñu def moo tax ñu daal am suñu suñu suñu suñu victoire victoire bi nag dinañ ci ja man de dinaa ci sagal jigéen ñi ndax jigéen ñi def nañ seen partition ba mu ba mu jeex euh, waaye nag su su jigéen amee doole rek dafa fekk ñi nga xamante ne ñoo ànd ñoom jàpp ci mbagg yi mooy euh, Seydou Gueye euh, ministre ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba ak Pape Ablaye Seck ak Maymouna Ndoye Seck ñoo ñëpp dañ cee jàpp vraiment benn bokk yaakaar bi tam dañ ko dañ koo taxawal dañ ko dañ ko dañ koo jox cëram yaa ngi déglu cër boobu nga xamante ne ndax man mii di wax ak yéen di Aram Diagne man maa ngi nekk ci parti socialiste yaa man maa taxawal parti socialiste fii si Médina te ñoom dañ maa jox cër bi ànd ak seen i femmes ni aramkat nangu nañu moom mu jiite femmes yi kon taxawal ngeen ci Benno Bokk Yaakaar bi li nga xamante ni ñun loolu nag la ñu bëgg ngeen continuer ko ñun dañoo gagné ci élection présidentielle bi fii au niveau de la Médina bi ñu gañee nag Euh, am na apport boo xamante ne président de la république moo ko def ndax moom liggéeyam moom la ñoom Seydou Gueye ñoom Cheikh Ahmed Ba fësal loolu moo waral waa waa Médina yi daa de ni ah ñoom kat bilan bii ñoom épousé nañ ko ànd nañ ci ñu daal di voteel président Macky Sall mu daal di gagné ndax bilan Macky Sall ñëpp xam nañ ko nee naa Macky Sall fii nga xamante ne ñun euh, bi ñu def ay ay meeting ak ay ay tee débat dama doon dama doon wax lu bare ma ne ñun de ah, en 2011 2012 bi nga xamante ne dañ doon ay tee débat ak ñoom seen courant loolu rek war naa tax vraiment ñun ñi ñi nga xamante ne bilan ci Macky Sall surtout jigéen ñi nga xamante ne dem marché chaque jour da leen di sonal kon nag Macky Sall moo liggéey liggéey bi waaye ñi nga xam ne ñoo jàpp suñu mag yi jàpp ci ba nga xam ne jeunes yi ak femmes yi ànd nañu daa dee ne rek la mooy ñoom Cheikh Seydou Gueye di Cheikh Ahmed Tidiane Ba di Pape Abdoulaye Seck di Maïmouna Ndoye Seck di Eva Marie Coll Seck seen taxawaay rafet na ñi ngi ñaan nag ñaan yàlla ñun waa benn bokk yaakaar ñi ngi ñaan yàlla seen taxawaay gën a ngeen gën a jàppoo nekk benn ndax échéance future yi ñu mën ko gagné ci jàmm ak salaam